non non non maanaam man kër gu ma dëkkoon. waaw Pikine ba mu fa fan sama xaw ban combat maa ngi fa dem ba mu duggee ci kër gu ma nekkoon. ba ma génnee dama gis maire xam ne ñu ngi dem jooy ñu may wax ñu ngi koy dégg bu ma gisee ma ko rek ba duggee ci kër gi génn am na maire yu togg naa 15 ans xaw ma 10 ans. togg lan ay xanaa ay fondé ak yooyu. non non togg ceeb maa fi lépp kon ni añ togg añ ma dem marché du Ndougu maire Adama Koli ñoom Muntaga xam nga jënd jënd kaani jënd poog dem ndugu ndugu suma kër nekk xale bu góor dem jor suma saak dem duggu marché ànd ak jigéen ñi dem ma dugg ci biir marché bi ndugg ñii di reetaan ñii di ma comprendre am na ñoo xam su ma ñëwee dinaa ma loo bëgg a togg tey ma wax leen dem duggal ma wala ñu préparé ma ko xam nga su ma ñëwee dugg jënd lépp jënd wala jàpp ma dem suma kër toog togg xaar suma pap ngoom jàngi ñëw wàcc mu yekk ñu añ sama papa bu ñëwee tam aussi noonu ma yekkal ko ñu toog lekk man su ma gaalee togg kon yaa doon togg ci kër gi def naa ko ay 15 ans li may wax kay suma xarit yaa ngi may dégg waa Pikine ñu ngi may dégg suma waa ko ñu ngi dégg ñu nekk ci marché bi tamit aussi ñu may dégg togg naa 15 ans xaw ma 12 ans yoo xam ne maa ngi suñu kër du ma def dara togg dem entraîné ji ñëwaat toog xaar ñu ñëw ma yekk reer togg añ togg reer togg reer waaw togg añ toog reer yeew itam dem uti mburu lang train dem caaroy ci fagat ki uti xam nga ñëw lijjanti ñëw xam géré so bar xaadim dam ko dam bot mu may deg bu baax ak souleyman ngom ak khadim suma rak bo dun na ñam ay am nañ ay jaar jaar te ba muy métti mais lu metti lu ba muy metti kenn fekk ñu ci woon ku dul pap ñom mag bu baax man ko nuy pap ana pap ngom xam nga pap ngom mi etali euh yow gën nga deg pap ngom non ñu ngi degante d'ailleurs combat bi taxaw ni sax mu moko jël taguuma ah waaw moomu jël moom la Gaston jot téléphone wax ak moom expliqué ak moom mun signé combat bi woo ma téléphone. Euh, Pape Ngom kon ah. fu ne nga ne. mu ngi Italie. Euh, ñu seetaan benn élément euh, ñëw ak Eumeu Sène. lamb moo bëgg Eumeu Sène. Eumeu bi mu nekk xale tuuti tànk li ko topp géej topp ko ko arène li ko topp mbapat topp ko arène wóor na rasulullah ay kilifa ñoo doon taal seen oto mu jaral leen ñu fanaan ci àll bi ndax Eumeu Sène. bés daf maa jé bés heure bu nek ciép ciép mu jigi dama nako xolal foko amaté saraxé ko bu bu wëndi dañoo dem ba son ci ciép bi ama si doon foy lamb lamb moko bëggoon waaye bëgguloon lamb boy xol au fond après lay door comprendre mais ama sen man mun naa waat ci rabbil jëli waxidu fekkente na am nañu ko ko bari ci lamb ji di far de mhm. di far faruma mais bu fekkente ne am na ku ko dàq ci ci làmb ji gisaguma ko bokk dóor naa guddeeg bëccëg reyante parce que comme que maire bi dafa waxoon du ñëw du ma bëree man dama doon reyante pour li maire bi waxoon ama seen am naa moment boo xam ne ab sant na woon da doon jooy jooy yu métti vraiment di waaw métti na trop métti woon na waaye lépp dañ koy jël delloo ko ci rabbil jële wax bi ko ci yàlla xam ne yàlla mooy borom lépp yàlla ku mu jël dalaa bëgg moo mel a sàkk mooy jël lu li nga gën a bëgg te mënoo ci dara bu doon reyante la du dem te alhamdulilah loolu laa ko wax ba sa yaay génnee àdduna sa kanam nga defar ko jëbal ko rabbil jële waxi de jébal ko boromam am na ñoo xam ne te loolu amuñu ko coow li bëri na jàppal bàyyil bi bëri na waaye euh, li ma ko wax moo ci nekk ndeyam liggéeyal na ko ci kër baayam loo xam ne lu mu lu day dem barke Seydina mais day jàng rek waaye kenn fuñ ko gën a yërëmee foofu la yàlla di ñëwee li koy ñaax na sol daal daawam ya lu ko war moom xam na ko euh, champion euh, xam naa ne euh, euh, bu ma la bu ma la waxee ceen ceen lan mooy ñëw sa yow sa sa yow ceen ceen bu ma la ceen ceen loolu suma xel day dem suma yaay euh, sa papa dafa am lu muy yóbbante te digga bor la sa papa moo ma waxoon ne ma boo jàkkaarloog sama doom te mu def lépp ci man laajal ma ko kii lan la doon ci moom ñuy jéggalu bu baax euh, jàpp naa ne euh, man maa maa maa jëloon sama photo jox la jëlaat naa sama photo ñoo ngi lay jéggalu euh, li waaji naan day wone ni nga toll ci sa waajur comme ni nga koy waxee du wax rek dund la ci loolu ndax mën nga ñu ñëwal rek ci tënk maanaam ci sa waajur wu jigéen woowu sa gisee ak moom te it ñu la ciy jégalu nag bu baax. waaw garaaw. sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax. parce que bon yàlla suñu muy fayam. mooy ki nga doon wax léegi ne. maanaam ba lepp mom la mang koy sante pap bu baakha baax parce que su amu amoon na num num doon nu bu mu nekkul responsable rek heure bi mu nona demé demee parce que mag bu mag mag la taw bu mat taw la daana xex ak man xex yi metti pour bañ ma jadd ci ben yoon daanañu daana simbi bu mi simbi sax bo xolé lolo ko waraloon du musa am daana ko bokk ñun yar nañ ñu fu ñu war a mhm. kon kon moom dafa teel a responsable. waaw wane yoon wi. dafa teel a aw son papa. Mhm. dafa teel a aw ba pare am ay rakk yu góor te bu jugul woon si ñun. Mhm. mënoon na demee neneen. su ñu féete ginnaaw. waaw mais xam na tànk tuweem xam nga su may wax ci moom du ma fi jugee. tey li ma waatoon ko def ci àdduna dootuma bëreeg diw. moom moo ma si jëlee. te ba mu waxee boo wax fu ñu jaar dama abset lu mu wax te xam naa ne lu may jëmale kanam rek la may def mais du ma def lu may jëmale ginnaaw. <laughs> munoo ko gàntal dara munoo ko dara. moom ma waxtaan naag Père Gas jël naa lii dama bëri ji dama xaw ma sax aw ma sax xaw ma sax lu ñu déggoo jëm ma ko sax calculer dama na ko <laughs> mais moom nee na. Euh, hmm. yow euh, moom dafa wax ne yow. Euh, kii naanaam yéen a bokk papa waaye. moom sa papa nga ko def moom danga nga koo jox papa moom. waaw da nga ko xool bëtu papa nga koy xool. si parce dama xam lu mu daj si ñun dafa dama xam fu mu jaar si ñun. Mhm. suma yaay avant loolu sax suma papa laay sant tamit bu baax. Mhm. parce que jàmbaar la jàmbaar la muñkat la. Mhm. mais suma yaay moom dañoo. dañoo am jaay jaar. sama mère man fu ñu jaar dafa dafa dafa dafa dafa dafa doy waar dafa yéeme. Mhm. parce que yaay la boo xam ni vraiment jàmbaar la quoi jàmbaar la te gaynde la quoi mère bi. bu mhm. am diine xam nga bëgg sunna mais dama dégg ci benn wax ñu ne euh, moom euh, bi nga koy mujjee gis booba xale nga ñaata at nga waaw mu koy mujjee am gis moom moom ay douze ans laay am. fukki at ak ñaar 13 ans 12 ans 13 ans côté wala mu mujjee gis moom mu dem parce que suma yaay mais waaw suma yaay amul problème ak suma papa mu dem de déedéet sëykat la muñkat la loolu moo àdduna bi yëpp xam nañ ko. Hmm. lu ñu doon ni sax tey ci muñam lañ ko amee. lu woon dem mais non xam nga tey dañu am ay ay ñoom dañu am ay ay cosaan. Hmm. te am na loo xam ne moom da ko war a doon. Hmm. ay mbokkam ñoo ko jël si. ba ñuy ñëw dañoo gaare ay oto yu bari dama ko fàtte sol lu xonk ba ñëwee wax sama ñaan ko demoon na sama affaire yi commencé woon di koy sonal li may wax mhm. suma koñ bu ma dëkk mhm. juddoo fa yoro fa mun nañ ma seede dañ nañ ba affaire yi commencé di koy sonal bu baax mhm. sama papa na ci la waxtaan ay mbokkam yeewi leen ñu dem sama yaay ba mu demee nag lépp luy trace buñ ko waree gisee dañ ko effacé ñoom xamuñu ko woon kon bi mu demee gisatu leen ko. non gisatuñ ko amul du téléphone. Euh, non non xamatuñ ne parce que moment boobu téléphone amul ok bëriwul woon quoi. nga toog ñaata at gisoo ko. à peu près. non toog naa dem naa sama yaay bu mu koy gis dem naa ba màgg ba nekk xale bu góor moo nag fu mu nekk dinaa ko dinaa ko seeti. kon yow yaa jog dem seeti ko te booba booba booba dëgg nga champion kon. si. xanaa kon boobu ëppal nga ñaar fukki at ak nangam. si waaw am na ay benn cinq ans vingt quatre nga jóg rek ne da koy wëri. waaw da koy seeti. mais koo xamul fu mu ne noo koy gisee. foo jaar ba si parce soo sama mag tamit aussi daf ma dem teg ci yoon quoi Pape Ngom. Mhm. mais tamit aussi am na suma nijaay boo xam ne dem naa ba këram ci ay tettal quoi. Mhm. ma dem ba dëkk bu ñuy wax Gambie soto koy. jour boo ma ñëwee foofu waa kër gi nelaw ba ba set parce que dañu woote di waxtaan parce dëkk bu mu nekk dafa xawoon a xawoon doy waar maanaam ci digg Casamance quoi. waaw yaay muy nekk fu ñuy wax Sile Thiay. fa la newoon jooju jamono Sile Thiay waaw moom a dénkaane Badiana nag. moo tax Badiana la ñëpp xam ci sama dëkk. Mhm. suma yaay mi ngi dëkk Badiana moom waaw Ngooñaam la ñoon ñëw jóge fa ñëw Sile Thiay. waaw am nañ jaar jaar daal bëgguma ci. nga dem waaw ma dem ba gis ko. dem nga ba biir Casamance gis ko. waaw ma demee maa daje ku ñuy wax Bori. kooku mbokk la ci man ba sa mbokk mi ne ma da ngay dëpp après nañ ko wax sa yóbbante nañ bind lettre wax ah non loolu moom waroo ko nangu moom jugee Sénégal ba euh, jugee Sénégal dem Gambie waaw après ci laa dem après ci la ma bor yi ñëw nag wax ma na ma nañ dem benn ku ñu bor si yàlla si maa ngi ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana moom tamit gaañu na kooku papaam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay mais papaam sama yaay dafa def famille yëpp dañoo gaañu moom rek a desoon <laughs> ñëpp ñëp ñëp ñëpp famille yëpp a gaañu papaam yaayam ay frère am ay sœur am ñëpp a gaañu moom kese desoon <laughs> léegi nag waaye buñ demee bu coom mën a mën tam du mën a yegg fii laa a yem mais ba ma bàyyi ma dem tuuti tamit xam naa ni ak kiwu direct dab na ko mu dab ma ñuy dem ma ne ko suma yaay de su ma gisee du ma xàmmee mais man dinaa ko xàmmee ah bon ma ko waaw gisee naa ko xàmmee moom du ma xàmmee après ci la ñuy dox di dox ba dugg àll bi ba sori di jaar ci yoonu làqutu yi ba jub dëkk bi nag mu a ma léegi jub nañ dëkk bi ci lañ gis groupe maire yi ñëw e xeet la fekk ñu ngi jógee ci fara xam naa ci toolu ceeb yi mhm. donc yaay moom moo mu day muuru moom muuru na le nga xàmmee ko waaw dama ko seen rek ko parce que bind bi quoi mais yow nga nekk xale treize ans mhm. toog ba am daanaka ñaar fukki at nangam mën a xàmmee noo noo def ba xàmmee ko suma yaay woy bu mën a wooyal ma nekkee xale sax jàppoon naa ko sama bopp dama koy tax man damay man yooyu ma sama yaay dama koy nettali sax loo xam ne dana day tiit danaa ma lii war a ko fàttaliku mënu nekk na ma dama koy ci laa ko yi ne leen moo nga ma ne ko mu ngi ne leen mu ne moom sa yaay moo nekk nii. ma du moom de ma ko moom la non non du moom de dama jaxase quoi ma ko noonu moom la mais bu ko wax dara nañ jam rek mun du ma xàmmee. après ci la ñëw bu ci moom ñu waxtaan mu daal di làkk sama xarit bi joolaan na ko yow kii nga àndal nii ki du nit fii di kii nitu Ndakaarlu kii yaramam bi ki la lay def ci àll bi. ak foo xamee ki bu ko indi fii mu ne ko noonu sama xarit dafa ñëw fii mun ne xanaa ki dafa bugg dugg ci ay affaire kii gi demee noonu. mu ne ko non sama xarit bu ñëw mu ne ko kii wóor na koy indi fii kii boo ko xoolee xam ne nekkul nit ba sonn. du nit kii dëkkul fii yëpp bàyyil kii mu dem xaw ma ci bëgg na mais na ko bàyyi mu dem. di ko ci joolaa après ma jékki-jékki na ko maire yow dégg nga làkk joolaa mu tëdd na xool ma nangul ne ko maire yow dégg nga olof booba di làkk joolaa après ma téye ci yére bi mu ne suma mu ne doomam bi del ki sa xarit bi mu bàyyi suma yére. sa yaay wax la loolu. waaw te mu ànd ak yow ngeen dem di ngeen dox ngeen dox ko man duma ma seen morom après nak sama xel bi di reetaan di wax di ma xool ko xol après ma jékki-jékki na ko yaay xàmmee nga ma nanguma ma mu ma ne ko soxna si yaay xàmmee nga ma nanguma ma xàmmee ma ñëw taxaw ci kanam ma dafa am caractère nak moom. après mu taxaw xol ma ci ban ma xol ko man xàmmee nga ma nangul wax olof mu dem ma téye ci ma poñe ko nak quoi ma téye yére dajale ko ni quoi. Hmm. mais yow xana xàmmee wu ma la diw mu ne ma duma sa morom ma kaay kon dégg ngolof di ko tooñ quoi mais moom mi ci dëggam mu ne ma demal nga li ngeen di doxi te nga bàyyi man du ma sa morom ko man la diw mu xolaat ma mu ne ma diw xale bu tuuti boobu juddoogul nan la mën sa yow sa yaram commencé di dogane quoi da bëgg nga bàyyi ma ko téye man la xàmmewu ma léegi nag ma koy xàmmewu ba sonn wax lu nekk mais nangul munu gëm ni man ma xam nga rek entraînement yi ak lekk mhm. bi ni may mhm. toll ak nam la bàyyi woon doole nga yor waaw force bu nga yor munu gëm ni ki xam nga sama doom bi kii Eumeu Sène moo mun a toll nii mu mun ko imaginer quoi. Mm-hmm. munu ponkal mu toll nii yow taxaw fi nga naan ma ne ko man la mun a Eumeu Sène kooku juddu keneen ngay wax mais boo noon keneen sax ma ne mais yow ma ne ko yaay man la diw. Mm-hmm. après ci laa wax wax mu yàgg ma ne na xëy na mère bi xam nga dafa dafa xameetul quoi xëy na dafa xel mi dafa tourné kii demee. après nag ci laa sama rongoñ commencé tuuru ma wax wax nangu ma gëm sama xarit bi wax wax nangu ko gëm mu ne ko Eumeu Sène mënul nga jooy ci kanamam waaw jooy naa mais mënu ma gëm dafa dëgër nag quoi mhm. mu ne non non mu ne wax ni moom la mënul toll mënu màgg mënu yor jëmm ji mhm. mu ne ko pourtant moom la mënu mënu yor ji après ci laa jox ci xaalis ba may dajale ay un million et quelque ma jox ko xaalis mu teul mu teul xaalis mu teul sama loxo sànni ko million quelque mu dee wat leen mu tass lepp tass fo mu sànni ko nak ba pare mu poña ma nag na ma bul mo wax ay waxu xaalis man duma sama morom <laughs> wa dogal na suma kaw quoi daal may baye ba ma baye nak après mon tam moon ko ginaaw la nak damay dem quoi na ñibi quoi parce que xammeetuma mooy dox mu yàgg nag ci la mbokk mi commencé di wax quoi ñu wax seen bir di wax après mu daw duma dab mu wax nak man tam ma deugal rek quoi kon ne di wax après bu ñëwee ci ma ci man mu ne ma yow la ma seen mu ne quoi ma la ma seen noo toll nii yow la ngay lekk noo dem ba mel nii yow la ëmm ma ko man la ëmm seen après nag mu commencé xam nga simi suma yére quoi xool moom mu simi mu simi mu xool suñu bëñee sama bëñee quoi. parce que ñu dafa am ñun dem foqee. mu na ma siiñal ma siiñ mu xool sama bët ci la commencé ma xool na sama bopp xool sama nopp yi wër ma. xool sama yaram ma simi ma yaram neen mu xool sama sama yére rek quoi mu xool ma tourné ko arrière xool ma bu baax. après ci la toog ci suuf nag day jooy jonkal mu jonkani suuf nag man tam ma kottu ko ñu kottante di jooy après nag mu may xool mais xëy na xel mi dalul. Mhm. mu may xool ñuy dox donc xàmmee na kii sax a sa mi mu ci am ñaar léegi nag ma commencé nag di ko woyal woy boobu mu mën a woyal ba ñu xale. Mhm. maanaam mu fàttali ko ko. waaw man ma koy woy di dox ànd ak moom lu ko di jooy di ànd ak di dox di ko woy woy boobu di ko woyantu. ci la mu cotte nag seere bu baax xam ne ka daan wayal way wa moo mokk nii tey bu dima ko répété léegi nag mm. man ci biir woy ñu àndee nii mu jooy ma jooy par ñu àndi dox mu kon ni di wayal woy boobu mu jooy ba mënutul dox nag mënutul dem mu taxaw nag app dañ euh, na app ci laa ne ko nag way joolaa la woon way wara mënu ma ko tu xam <laughs> nga fàtte woo ko waaw woo ma ko mais mënu ma koo di waxaat <laughs> léegi nag ci la ma ci la ko wax na ko yow yaa ngi may tuddee yaa ngi may wooyee tur bii nga mën a woowee mm-hmm. mu soog koo teg xoolaat ma nag téye ma bu baax ngëpp sama loxo xool ma kulli bëti xool ma bu baax. Mhm. daal di ma kon da laa wutaloon sa turu bopp. man sama yaay du ma wooyee Eumeu Sène du ma wooyee Mouhamed kon sama papa lu muy wax Mouhamed du ma wooyee Eumeu Sène mhm. la su la. Mhm. waaw moom nag ma. waaye ba nga ko fàttalee xam na ne kii moom mooma. waaw ba mu ko waxee tur boobu nag ma bu baax. après ci la mbokkam yëpp dina nañ jam mbokkam yëpp dem na fa lañ toog maag moom. Eumeu Sène euh, di sunu champion tey ñu koy dalal ci dañ kumpa di ci am mbégte